mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen ànd ak ñun si rajo Rewmi FM tey nag ñu amat ci mbégte di dalal ki nga xam ni moom moo di Amadou Diarra nekk euh, maire bu euh, Pikine noor monsieur le maire ñu ngi lay sant di la gërëm ci ni nga nangoo invitation bi. bisimilah rahmaani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad euh, li ñuy commencé mooy sant yàlla jullit ci yonent bi sallallahu alayhi wa Euh, di di la gërëm yow Wemba di gërëm euh, waa rajo Rewmi FM yëpp euh, auditrice ak auditeurs yi lay déglu ci àdduna bi yëpp rawatina ñu dëkk Pikine ak sama waa gox waa Pikine Nord di leen nuyu di leen sargal di leen jox seen wàccuwaay bi nga toogaatee ba tey projet yi fan nga ci toll tey ci Nord mais en marche Pikine Nord en marche moom laa loolu en marche tey boo demee école neuf classe yëpp dañoo génne élèves yi en une semaine ñu changé trois yëpp trois yëpp maa ngi photo yi maa yi partagé naa ko statut février la ñu fal 23 janvier élection mu am recours ñu xaar recours bi moo ngi génn mars woo naa sama conseil municipal yóbbu naa leen en de formation mettre naa commencé dérouler lancer marché yi ku bi nga gis ne théâtre Verdi bi euh, j'ai lancé un marché pour réfectionner ko def ko comme centre pour mu nekk un hub culturel toute la banlieue mun fi ñëw avec toutes les commodités salle de rencontre salle de réunion euh, studio le monde culturel de Pikine Nord dama leen di gate d'accord tous les acteurs culturels ñoom ñoo dajee réunion bi wax leen nan nan ngeen ko bëggee ñu wax joxe seen input ñu def ko ci cahier de charge bi lancé ko ki koy réaliser réaliser ko ñoom ñu commencé utiliser ko on va ñoo njëkk a réunion balaa ñu lancé marché bi gestion inclusive laay def école neuf bokk ci woon parce que du woon priorité dañu ñëw j'ai neuf écoles chaque année damay jël benn école mais bii dafa tase directeur bi nee ma ñetti classe ba mu ñeent seen toit da ngay gis naan bi dafa am ay bën bën yuy senn waxuma nawet bi sax mais naaj bi day day feeñ ci classe bi heure bi gars yi di jàng ma teggi lépp defaraat yu bees tàq jox la école de séparation la ñu parce que moom ak école Elimane Ndiaye ak Mame Yéli Badiane élèves dañuy dugalante di dem génne fii dugg fii dugg ah, mënuñu cloisonner ces ces ces ces élèves mun ko gérer xam heure bi ñuy dugg heure bi ñuy waaj il me demande un mur de clôture ko ba mu ma yëkkati miir bi ba tëj toilettes yi c'était défectueuse te man école toilette laa ci gën a fonk ah. parce que les élèves innocents là ku ci ñëw soxla sa bopp di daw ci kër environnant yi ah, parfois nga yàq sa tubé yoon bi mënuma vivre loolu mënuma vivre loolu parce que ba may def ba may nekk école primaire dañoo am suñu benn xam naa turam sax ba léegi ndeysaan <laughs> dafa yàqoon tubéen xet bi topp ko weñ yi topp ko nit ñi ndiiraan noonu lañ ko yuuxoo ba këram ay xale innocent yaa yaa dafa yàq tubéyam loolu marqué ma ma ne su ma nekkee maire toilette du am problème école wala école du am problème toilette. mënuloo ko di gérer quoi mënuma ko sàmm daf may hanté. école 5 école 9 école moo ci desoon defar naa ko ren defaguma sax cérémonie de réception parce que xam nga ne dama tëddoon feebar. démb laa tane tey lañ def émission te yow rek laa ko may. Rewmi FM. merci beaucoup su dul loolu duma ma déplacé parce que je suis convalescent. mais mënu ma bañ a wax parce que Sénégal soxla na ma wax. alors ma defar loolu. école cinq entrepreneur bi yónni naa fa li mu soxla pour mur de clôture dafa bëgg ñu yokkaat ko ñoom dama leen defal defal ba ñeneen ñi merama ma nee nañ booy dañuy tëb mbër yi di tëb ci biir di entraîner booy di tëb ci biir di football ce que ça loo xam ne la lu ñu war a encourager la pour école bàyyi fa léegi ñoom jooy nañ ko jooy bon mbër yi aussi suñu amul fu ñu ko def am na lu ma leen di tabaxal fii su paree ñu dem foofu mais en attendant quartier yi ko wër ñoo def seen réunion wax ko ñëw seet si ma bindal ma ay note ma yónni fa entrepreneur wax besoin yi entrepreneur bi commencé na donc wax naa la kon école neuf école cinq école Baba Gande ñoom yëkkati. donc problème école moom ça ne pose pas de non non non te pareeguma parce que cinq ans lañ ma fala benn année bi nee la kenn la mars avril mai juin juin ñoo ngi nekk tey la onze ma ñëw Rewmi FM donc ñetti weer defar gum naa loolu semaine bii laay dem dispensaire Darou Khoudoss R plus la woon dama koy def R plus 2 semaine prochaine kii gagné marché bi gagné d'accord donc santé bi mi ngi priorité loolu lañ ma laaj ambulance daal moo ma desee ambulance te du ko mën a jënd ren maa ngi wut coopération lancé naa en Italie principalement à Rome am na yeneen Pikinois yu nekk États-Unis ñi nekk France nee na monsieur le maire waaw dinañ ñëw indil moo tax bëgguma jël xaalisu askan bi di ko jënd damay xaar yooyu dikk comme ça ñu am ñaar ba ñetti ambulance wutaale sax corbillard parce que bi fi nekkoon da doon nekk ambulance ak corbillard ku dee dem Touba ku dee dem Tivaouane mbaa Ndiassane finalement voyage yooyu mhm. durée de vie am day gàtt alors donc luñ ci am du doy mhm. beneen bi assainissement bi fii nga gis arène bi. foo koy sëkk dem si assainissement monsieur le maire yaa ngi fàttaliku la xew ci waawoon loolu. lu ñu war a mën a sóor la bu fekkee ni sensibilisation ñi dénk centre de santé yi ci loolu est-ce que yow itam yaa ngi soññ ci équipe yi nga xam ni ñoom ñoo yor bërëbu fajukaay yi. ci wàllu woowu. merci xam nga yow mën nga wax pour ma soññ ñi comité yi yor loolu mais li xew Tivaouane ñëpp dañu ne ministre de la santé la ba président wàcce réseaux sociaux yëpp démission dem léegi démissionné est-ce que moom moo yor comité de santé Tivaouane est-ce que euh, yi ñu jënd ko yow est-ce moo ko commandé moo ko exécuté tooñ nañ pour apaiser tout le monde le président wàccee na ko te chaque structure de santé am na lu ñuy wax CDS comité de direction de santé présidé par le maire ñu nommé un secrétariat exécutif secrétariat exécutif bi c'est les associations les bàjjenu gox les imams les chefs de quartier ñoo dajale fal le secrétaire exécutif moo yore budget bi médecin chef bi wala infirmier chef de poste bi mooy def commande lu soxla moo yor chéquier bi secteur exécutif bi su exprimer euh, kii bi besoin bi def ko ci chéquier bi secteur exécutif bi signé trésorier bi signé ñu dem banque réaliser seen li ñu bëgg a réaliser loolu ci yoonu ministre de la santé wala directeur de la santé nationale. mais yow yaa ngi man maag ñoom man maay présider les comités de euh, direction de santé. il hmm. euh, deux conseils municipaux qui siègent ñu nommé secrétariat exécutif secrétariat ñu nommé fii sama njaboot nga bokk parce que dëkk bi maa fi majoritaire secrétariat exécutif bi nekk Daara Khoudoss sama chef de cabinet la trésorier bi ancien président ASC la Ndiaye Ndiaye parti démocratique sénégalais la bokk matériel Sagna bi nekkoon sama chef de bureau état civil te gaañu moo doon trésorier adjoint ñoo ngi jëm la 15 ay renouvellement boo demee ci municipal 1 bi trésorier bi sama chef de protocole la secrétaire exécutif bi Ndeye Marème Ndiaye sama euh, responsable des jeunes filles la woon léegi âgé na. non léegi âgé na quoi amul parce que boo amee 35 ans da ngay moom def na euh, wàcc na 35 ans weesu na ko donc mais teewul agent la ci mairie bi ma koy fay salaire mais ci gox ba la dëkk ñu fal ko fa sama chef de protocole agent la ci mairie bi di fi fayeeku mu dem ca gox ba am ko président ASC Galawaar la ñu fal ko foofu trésorier donc samay njaboot ñoo nekkaat ba pare di leen subventionné at bu jot ma jox leen euh, un million deux millions. du tard ñu bari dañ koy laaj subvention yi des fois nii nii nii amagul entre juin et juillet laa leen koy jox sakat te bu ma leen ko joxee du ma leen def leen ko fii. réglez vos problèmes et rendez-moi compte laa indi. Daaru Xuddoos laaj na ma besoin mooy dafa soxla R plus deux ci kaw. pour mu gën a am une grande salle tuberculose. am d'autres salles yi séparé ko ak yoon bi sax du jaar parce que foofu affluence bi dafa garaaw j'ai décidé ma yokkal loolu semaine prochaine la chantier bi di commencé d' accord j'ai demandé même à l' entrepreneur de me sortir la maquette pour ma partager ko parce que man lépp lu may def day dama koy extrapoler avec les réseaux sociaux donc mbiru santé y a pas problème l' assainissement je te disais que fii ñuy sëkk ci arène nationale bi boo demee fekk fa matériels yi fekk koy branché équipe baa ngi fa main-d'œuvre locale bi ñu dëkk ca quartier yooyu laa ne entrepreneur ñoom ngay jël ñeenti gardien la fa lañ dëkk fa la ñu yeewoo. kenn jógewul feneen ñëw. kenn ñu dëkk ca quartier ba la waa Ndiassane Ainoumane Nimzatt Darou Khoudoss 18 personne jëlagum nañ leen ñuy liggéey ko loolu te man lañ ko laaj ma joxe te loolu du chantier yi ñuy tabax du centre commercial bi de du maison de la jeunesse bi de du maison de la femme bi de du piscine municipale bi may waaj def foofu ah. pour wër assainissement bi ngir mu parer ah. aux inondations possibles ah. pour nawet bii ñu jëm moo tax ñu génnee 470 millions def ko ci kon donc te dërëmu commune bi génnu ci lépp entre entrepreneur privé bu yor marché yi ak chantier yi ak gouvernement du Sénégal technique négociation moo tax ànd ak bi ma ànd ak nguur am njëriñ ci biir feebar laa toog téléphoné ba ministre bi ñëw xool ko ba validé ba daaj bi bind kon sama ànd ak nguur gi njëriñ la ci askan bi ànd bi ma ànd ak nguur gi njëriñ la ñoom ci ñoom ndax seen maire dina mën a ñodd lu gaaw lu muy jëlee ci nguur gi indi ko ah. donc ba may dem di ànd ak président Macky Sall ñoom laa laaj imaam yi chef de quartier yi ASC yi étudiants yi conseil communal de la jeunesse bàjjenu gox yi cordonnier yi ñëpp laa laaj ñu ne ma demal yéex na ma dem élection locale ma ñu gagné ñu ne ma déroulé kon sama déroulé laa war a gaaw. dañ ngay chaque fois. Euh, arène nationale bi. li commune bi soxla dama koy dem. jëli ndax may Baye Fallu commune bi. Mhm. Euh, ba nga ko dalee wax ba tey am nga ci ay retombées yi ñu ci am. zéro ba tey ma ci dërëmu retombé te maa ngi koy waxaat pour président Macky Sall dégg ko. waxaat naa ko ko barki démb bi naan naa ko ci message nee na ma tegal yëpp législative yi passé su passé nga toog ma toog ministre yi ko concerne toog ñu réglé ko définitivement te lépp du kenn ku dul ministre Matar Ba wax naa ko benn yoon ñaari yoon ñetti yoon. ah la santé de règlement proposer la nomination d'un directeur exécutif bi gérer arène bi les partis dërëm ci lépp ministère ama koy gérer chaque combat on perd des millions ñun commune bi te la loi moo wax ne le taxes sur les spectacles appartiennent à la commune bu infrastructure bi nekk ñun la Pikine Nord man maay seen maire taxe yooyu laxisme ministre des sports toppatoo yi muy toppatoo ay yeneen te boo mënu koo boole toppatoo équipe nationale baax na gañal nañu coupe d'Afrique na yooyu baax na loolu Sénégal gi yëpp ñoo ci gis seen bopp mais ñun Pikine noonu gisuñu suñu bopp ci gestion arène bi du yoon te wax naa ko président en audience publique ah, wax naa ko en privé quatre-vingt-dix millions la ñu fay la ñu perte gum quatre fois quatre-vingt-dix millions minimum laa wax minimum promoteurs yi c'est sucre parce que duñ fay taxe spectacle te xale bu def soirée fii wala nga indi fi Wally Seck da fay taxe spectacle te loi moo ko wax ministre installé à côté de l'arène amaguñ sax bâtiment ay conteneur la ñuy fanaan bu arène amee bu combat amee bu combat amul ñoo ngi ramasse zone boobu moom ñoo ngi koy raxas chaque guddi foofu moom kon gars foofu moom léegi li des mooy ma tabaxal leen centre commercial Euh, ku mu tudd sant euh, commissariat. commi fi may tabax centre commercial bi falaa laa leen di tabaxal. coowal insécurité mën na nekk loo xam. jeex na gën mettre leen à l'aise ñu parce que day am beneen compagnie muy ñëw renforcer leen mu gën a mu gën a bëri. mais actuellement ñoo ngi foofu quoi avec euh, le lieutenant Sarr Pape Sarr vraiment rendre naa leen visite gis conditions yi ñu moo tax dans le budget de cette année sóor nañ ñu tabax foofu benn commissariat pour ñoom ñu mun a nekk dans des conditions. optimales donc mën nga dalal xelu askan. non ñu am seen xel déjà combat yi am yëpp déggoo déggoo benn coow parce que ñoom ñoo koy maîtriser léegi nag il s'y ajoute que suñu li waxtaanoon ak président Macky ci bureau condition bi ma waxoon ak moom dama ko ne nañu jël ay stagiaires ay jeunes dëkk Pikine Nord nekk ay stagiaires ñu former leen ñuy accompagner la police ci encadrement événement yi mais ba ñu jël stagiaires yi ñu bëri Fatick lañ jógee Matar ba moo leen indi fàtte nañu. monsieur le maire loolu moom doy na waar grave man bokk ci nguur gi du tey lu ma war a wax dama koy wax man dara ñoruma li ma ñor mooy Pikine Nord ak président de la République ma décidé jàppale lépp lu koy yàqal ku ko def dama koy wax parce que mënuñu nekk maire population bi ñuy impacté su arène amee centre commercial yeeg magasin yeeg commerce yeeg jaaykat yeeg ñëppay tëj c'est manque à gagner en termes économiques imaginez ñu ñu grève kenn tëjul boutique ubbiwul xaalis ngay perte nga war a liggéey ay millions

millions muy quatre-vingts millions. mais ci non parce que Sénégal yi muy percevoir courant yow sa kër boo fayee facture courant wala Rewmi FM bii ñu nekk su fayee facture courant biir commune bi nga xamante ne fa nga nekk Sénégal da lay ristourner deux virgule cinq pour cent facture bi waa Rewmi FM fay wala waa kër Wemba bi ñu fay wala waa kër Amadou Diarra bi ñu fay. localité ba police d'abonnement yi fa am. Mhm. facture bu ñu fay. am na ñu ne la fayal sa taxe électricité ca commune ba dem trésor fay ko jox ko ko Senelec mooy toog 6 mois après wala 5 mois. ñu ngi fëgg buntu ba tey dara. fëgg nañ bind nañ ministre bi bind nañ ñëpp wax naa waxati yuuxu naa waxati mais comme duma Ousmane Sonko moo tax parfois da ngay boo bëggee euh, façon discours yooyu day indi ay ay ay yeew askan bi waxuma ko maa ngi continuer di muñ di perte xaalis boobu di ko négocier j'espère toog ci président pour ñu régler ko définitivement loolu mooy cour responsable est-ce que yëg la la dernière rencontre barki démb la kat de de l'organisation mondiale de la santé ba ñuy woote agenda euh, LGBT LGBT mm-hmm. Libye ak Sénégal voté wu si yëg nga ko bien sûr ça veut dire le Sénégal kii mm-hmm. représente réew mi bañ na ça veut dire Macky Sall promouvoir wul góor jigéen ñi xam leer na mais Ousmane Sonko est-ce que dina ko wax day jaxase maa ngi nit ñi te diplôme OMS organisation mondiale deux pays africains ont refusé mm-hmm. le Sénégal lu gënoon waroon ko woon voté fii mais fii am na fi ba pare c'est-à-dire dañuy dox ci maay nu nit ñi. xaw ma lan jug waaw dem di ci jéem a dugal xalif yi loolu daan ju mbóol rek bu rëy rek gémmiñam bu tooy tooy boobu mbeppe mbeppe mbeppe mbeppe mbeppe mbeppe mbeppe na arrêté mbeppe mbeppam yi. député yi bu ñu demee yeewu askan bi dañ leen voté loi contre góor jigéen yi. na fekk Sénégal Macky Sall joxe nañ digal ne du fi am. ba le 4 juin organisation àdduna bi yëpp daje. ñaari pays africain ñoo ne ñoo lànk ñoo bañ mu Libi ak Sénégal. ku bokkati yeewi askan bi mbaa nga bokk wàllu toog di waxi góor jigéen dañu war a. ñii dañu mën a jaxasee dañu naa fekk. ba duñ wax dëgg askan bi askan bi nag ñoo war a xam ne ñii c'est des gens. ràññee leen vraiment. lu gën a rëy organisation mondiale de la santé. ab réew diplomatiquement nga yónni sa représentant ne maa bañ voté wu ñu arrêté ñu dem wax taxaw taxaw. mais yéen tamit war a euh, bi waa dem ci rencontre mais moo tax ma ñëw Rewmi FM tey di ko def. su ma paree ma demaat beneen télé buñ ma fa invité. Ah, mais délégation ñoom yi ñu def dem foofu est-ce que mu leen def loolu yéen tam. ma ne maa ngi nii man amul lu may ragal amul lu may daw. xam nga ne j'étais malade. bien mais ñii lii ñuy def nii buñ ma invité seen meeting yi sax ma wax leen seen dëgg ci seen biir meeting yi. nañ arrêté use mine yi. Ousmane Sonko li ay waxi booy lay wax. maanaam yenn booy toog ci WhatsApp wala réseaux sociaux yi di kii nii. liñ bëgg a dégg loolu leen di wax ci meeting. on est désolé que la presse lui donne vraiment autant de de micro pour qu'il s'exprime dafa nara a yeewu askan bi dafa nar a yeewu askan Ousmane Sonko du ma ànd ak système bi Karim Wade je ne le reçois pas les anciens chefs d'état dama dañ leen war a fusiller man du ma musa allié wu ak Benno ak yi nu mu tudd PS AFP PDS tey ñooñu ñoo ko wër Malick Gakou AFP la woon Khalifa Sall PS wallu PDS tey ñooñu la àndal ñu les le système la àndal tey est anti-système ba muy door da doon wax ñoom politiciens yi tey il divise un parti politique donc il est un politicien donc mënatul wax léegi politiciens yi ak man bokkuñu moo leen pire parce que da doon bañ li mu doon bañ yëpp di ko gëmloo nit ñi ba nit ñi topp ko léegi da ko chamboulé ana Pierre Goudiaby Atepa àndul ak Senghor ànd ak Abdou Diouf ànd ak Abdoulaye Wade ànd ak Macky joxu ko siège ak oto mu campagne présidentielle bi paase ana Boubacar Camara qui était euh, ko mu bokk ak passé ci élection présidentielle aujourd'hui il prend le PDS Abdoulaye Wade himself jiite liste Wallu moom mu jiite liste Yewwi ñu ànd en coalition Khalifa Sall qui est l'enfant du système socialiste Benjamin Bâ ministre mu ànd ak moom Barthélémy Dias PS mu ànd ak moom si Ousmane Sonko laa ku muy nax mu tax Sénégalais yi ak jeunes yi ko topp moom ñu muy wax dañuy sàcc alal réew mi ci ñoo yem c'est un vilain centre commercial bi nga xam ni marché Zeng beeg est de sud marché yi foo ci toll ci assainissement quatre cent soixante-dix millions qui ont débuté depuis vendredi passé on est samedi aujourd'hui deux jours nga tase moom tey su la neexee ñu def visite de sance dans la semaine nga dem gisal sa bopp ma ñaanal leen ngeen am télé pour lii ma lay wan nga koy gées bu bu ñu verrouillé ak de d'assainissement ba pare liggéey ak nawet bii nga xamante ne ci weer bi soo moytul ndox tuuru ba mun a xettali askan bi ci ndox mi nga xamante ne moom lañ ci ndax sëkk bañ sëkk foofu li ci des mooy chantier yi jóg xëy yi am bâtiment yi jóg centre commercial deux mille cent places maison de la femme de Pikine Nord Adja maison de la jeunesse et des étudiants une piscine municipale une maison de la jeunesse et de la citoyenneté réalisée par l'État mhm. lii état moo koy réglé lii système build operate and transfer la partenariat public privé Pikine Nord dootul ñee Paris waxuma laay Dakar ak ay Mermoz ak Patte d'Oie sacré ak xuraan laa lay wax ni yooyu su paree Pikine Nord fera mhm. bon vivre yaa waxoon itam commune bi fu xaalisam soxla danga koy jëli te doo ci loo xam ne du la apporter voilà parce que soo gisee may wax ay centre commercial en priorité c'est pour que mu nekk une infrastructure de recette. yu dugal xaalis. bu pare ba commencé utiliser commerçant yi di fay ay mille par mois toute taxe confondue rentrée d' boobu bañ ko estimer sa va nous faire quatre cent millions l' millions année à partir de deux mille vingt trois ci la ñu commencé pavage yi deux mille bi étude lañ nekk jël nañ un cabinet ou deux cabinets ak la commission pavage universelle de Pikine Nord que dirige le conseil municipal Djibi Ndiaye ils train de faire des rencontres ñu xool yan zone la ñuy commencé pavage déjà dina am ren période test ak waa AGEROUTE hmm. ñu jël ay zone ay tali tànn naa lu toll dis dix-huit tali dañu war a tànn rayu Ageroute ak Promoville ñu def ko bokkul ak pavage universel bi commune bi di def après avoir fait les études de relief de topographie et tout pour que bu ñuy defar pavage yi mu ànd ak assainissement parce que dañuy bañ cuuni cuuni bu toll ni romb mbedd bu nit ñi doon tuur ndox parce que am ganus ndox boo fa tuur mu naan ko nga yow def ci tali pavé amul assainissement ñuy tuur ci kaw tali bi uh-huh. taar yi ñëw wala nawet ñëw fa ndox ma waroon jaar amul mu jaar ci kër bu boobaa defar buy indi lor période bii mu nekk des périodes d'études et d'essais def étude tout ce qui est padage assainissement xool faisabilité technique beeg sur le terrain ba pare tester ay zone ba mu réussir ñu généraliser ko à partir de 2023 jëm 2027 parce que pavage aussi j'en profite wax moom buñ ma falee rek ci at bu njëkk bi rek ma pavé Pikine Nord ba mu daj ci mandat bi laa koy pavé te mandat bi juróomi at la donc juróomi at dina pavé fépp incha allah léegi damay gis nga ne bañ ñu fale ah, alors kañ la pavage bi di commencé ah yaa waxoon buñ la falee nga pavé waaw man at yi mais ñu commencé généraliser déwén ba balaa vingt cinq ans yi su su ma toogee sama kër ñu ne moom monsieur le maire kaay continuer mais ñu yeneen juróom ñu daal waxtaanee rek ci actualité bi rassemblement bi nga xam ni coalition Yewwi Askan Wi amal nañ ko ci euh, semaine bi li ni mel mel ni message message bi ñu jagleel ñi nga xam ni ñoom ñoo di autorité wala sax euh, seen coalition yow bi nga bokk muy coalition Benno Bokk Yaakaar. waaw euh, man coalition bi nga wax damay changer seen tur euh, am lu ma leen ci bàyyi ndax coalition boobu jàpp naa seen doxin ak seen waxin ak seen taxawaay mooy yeewu askan bi yeewu askan bi dañu bëgg a tënk ak askan bi dañu bëgg a askan bi dañu bëgg jaxase Sénégal ci naka ci waxi naa feq ci waxi sos ci waxi fitna ngir li ñu bëgg ñoom mooy diaboliser régime président Macky Sall ngir am estime sénégalais yi mel ni ñoom ñoo ñëw pour yeewi askan bi mel ni askanu Sénégal nguuru Macky Sall danee na yeewu lépp di ay propagande politique te dara du ci dëgg Ousmane Sonko ay nit ñoo ko ngemb bitim réew ay promis milliards ay pétrole ñuy liggéey ci pétrole euh, commandé ko ne ko pétrole bi feeñ Sénégal bëgg nañ ci suñu loxo te Macky Sall joxuñu ko nañu jaxase carte gi soo ñëwee nga tas contrat yi ñun ñu dugg si at nañ ko fii juróom fukki at xale bu ndaw nga même boo ko amul léegi nga wutaat boo ko amul nga wutaat kon yow candidat bu baax la. firnde nga am ci déclaration yooyu. firnde yi ma ci am bu ci njëkk mooy moom ci boppam programme am dañ ko gëmloo ne nanga ko wax mu leer mu ne su ma ñëwee dinañ renégocier les contrats pétroliers mu koy wax ñëpp di dégg ñu déglu soo ko xam nañ ne élection présidentielle yi li mu njëkk a wax mooy première chose dañuy négocier contrat renégocier contrat pétrolier deuxième chose liggéeyatul impôt domaine troisième chose nee na quatre cent mille rek lay fayeeku ci euh, salaire u député un million trois di joxe añ reer ndékki dépense dafay courant di fay ndox di fay internet di voilà di dundal njabootam ba pare yor parti politique di ko doxal yor coalition bu toll ni Yewwi yor parti bu tudd Pastef di politicien di ko doxal mais nekkul moom mooy doxal coalition bi merci fii nit boobu moo ngi noonu liy doxal euh, coalition bi di doxal parteem di ko doxal moom ci boppam du moom du xaalisam kon lan la mooy ñi ma la wax wala dama laaj firnde comme loolu la woon ne Ousmane Sonko oto yi muy dawal du quatre cent millions moo ko jënd li muy dundee du 400000 yi la koy jëlee li muy doxalee Pastef du 400000 moo koy def sonorisation yi muy teg ci manifestation yi muy def depuis présidentielle beeg léegi du 400000 moo koy def kon quelque part il y a un enrichissement illicite de Ousmane Sonko te jógewul ci nguur gi kon fan la jógee ci ay étranger li muy masque woo mooy cotisation waa Pastef pour mun a justifier ëllëg son train de vie parce que day dox ci kaw maayanu nit ñi mais man mënul dox sama xel ñoo ko mag ci ñoo ko jiitu ci politique mouvement yi jaar sax jaaru fi mouvement élève jaar nañ ci jaar nañ mouvement étudiantil mus jaar nañ mouvement syndical jaar nañu jeunesse politique ba tey ñu weesu la cinquantaine Ousmane Sonko teg bu fi teg lu ñu jaaxal. donc c'est quelqu'un qui a été choisi misé investir ci moom pour récolter les fruits après son accession au pouvoir. maintenant les sénégalais bu ñu ko comprendre dinañ xam ne kii il est un danger de la république. waaw ba tey euh, ci euh, wàllum actualité politique bi mooy gis nañ euh, discours yi nga xam ni nemmeeku nañ ko ci ëttu politique bi ay violence verbale ay kaddu yi nga xam ni ñaaw na moom moo tax tey ki nga xam ne moo di Serigne Bara Dolly nekk su mandat de dépôt ca prison bu Rebeuss est-ce que ëttu bi loolu la soxla exactement. yow ak ñi lay déglu yëpp xam nañ ne Sénégal soxlawul façon discours bi Sénégal li mu soxla mooy Abdou Diouf ak Ablaye Wade dem élection Ablaye Wade gagné ko jox ko avion présidentiel ne ko dama représenter le Sénégal au Caire loolu la Sénégal soxla. ce message de dépassement là ak position stratégique du Sénégal ak jàmm bi Sénégal ak mag ñi liggéey fii loolu la soxla mais pas wàcc leen ci mbedd mi taal dëkk bi toj leen feu rouge yi toj leen euh, Auchan yi toj leen boutique yi këf leen chaîne oru jigéen ñi agressé leen nit ñi dem leen ci kër nit ñi di ngeen fa fekk ay mari ay milliards prochaine manifestation kooku dafa bëgg yeew askan bi dafa bëgg a yeew askan bi ci tubaab il veut le peuple attacher yeew yeew laa wax waxuma di gëmloo nit ñi day yeewi te moom moo bëgg a yeew askan bi Sénégal ñu ñaa ngi ci jàmm bu dul woon Ukraine bi nekk ci guerre moog Russie ñuy yëg seeraay yu yenn denrée yi yokk te yokk ci àdduna bi yëpp inflation yi am na dëkk yu ëpp dépassé soixante dix pour cent am na pays euh, européens yu egg ay soixante euh, dix sept pour cent vingt pour cent vingt cinq pour cent président Macky Sall ñëw conseil des ministres anticipé jël ay milliards def ko subvention sur les carburants et cetera jël essence bi nga xamante ne ñi am ñoo koy jël boobu rek la bàyyi mu impacté li ci des yëpp muy def ay effort mais ku dégg itam yokk na essence bi sax xel mën na jàpp ni daañu yokk li jëm si gasoil bi non non non arrêté bi ñu génnee dañ ko yemale ci essence bi kese. oui si si je comprends mooy moo tax ma ne ku jàpp ni euh, essence bi yokk na est-ce que du am xel ñaar ñi ñu yokk ji gasoil bi. am nga ñaar yëpp mënoon a yokkandoo ñaar yëpp mënoon a yokkandoo mais ci choix président Macky Sall la ne nañ ko bàyyi mu dalagum ci ci essence bi kese pas ci gasoil bi d'accord. te bu ñu yeggee ci mu war a yokk ci gasoil bi fekk conjoncture bi moo yegg foofu tamit da ciy dal su waree yokk ci sa poche mu yokk ci transport bi da ciy dal parce que le monde est en guerre moo waral mu dem Ukraine mu la wax est-ce lekk lépp guerre bi lañ koy taafantaloo comme ni ngeen comme ñu si bari ñu koy waxee ci gouvernement bi non xam nga loo xam nga ba guerre bi amee léegi la ñu commencé sentir loolu Macky Sall man ànduma ak woon moom président Abdoulaye Wade la àndaloon PDS laa woon di ko attaqué di ak moom ci wàllu surtout affaire Karim Wade bu ñu arrêté muy suñu doomu leader bu ñu xeexal moom mais su loolu weesoo amuloo ce que président Macky Sall moo ngi doxal dëkk bi nii ñaa ngi dem ba ñuy wax terre bi amul njëriñ léegi ñaata plus de cent cinquante mille personnes par jour ñoo ngi dem di ko jël soo amul woon njëriñ ñoo njëriñ ko jël dëkk bi fu nekk ñoo ko gas mais BRT bi nga yu mu indi tey ci ci ci réew mi dem bi dëkk bi dafa métti mais Abdoulaye Wade ba muy commencé tabax dëkk bi circulation foo dem ñu ne la déviation parce que c'était en construction tey aussi bu ñu bëggee am BRT demal France seen terre yeeg seen euh, euh, métro yeeg yëpp bañ koy bañuy def di ko gas gàllankoor ah, la bëgg yow boo sa jabar mosul la defal omelette daa fekk neen ab toj ko hmm? jël kuddu di ko yëngal nga naan lii la waaye ba omelette bi pare macha allah donc on veut quand on veut faire des omelettes on casse des œufs loolu la tubaab wax. donc gàllankoor bi. c'est parce que ay chantier la Sénégal dañoo fekk benn niveau bi nga xamante ne jamonoy parti socialiste. amuñu woon yenn vision yi élargie xam ne Sénégal en au delà de 2000 am na fu muy toll ay route yu xatak yu kenn xamul boo demee en Europe ay tali yi yàgg naan da fan fay la ñuy defar train bi fi muy jaar du sax jege habitation yi mais noonu lañ tënkee tabaxee Dakar nit ñi di dem banlieue président faale ñu jël train bi rombal ñu ko ba pare defaraat tali yi ba pare indiwaat BRT mu jëm ba Géejawaay donc loolu yëpp ay xéwal la yu muy indi ci ñun mu koy tabax stade bi xoolal suma leader Ablaye Wade lu mu ko tuddee reporter bu toog ci stade bu toll nii barki dem Rwanda ba mu amulee fu mu ubbi war ñu recevoir ñun daa ñëw suñu dëkk recevoir ñu ndax sopp suñu stade jeunesse bi kontaan Sénégal dem coupe d'Afrique dem coupe du monde jël coupe bi indi actuellement moo ngi wër ci dëkk bi ñu nekk ci gerte bi mel noonu Russie Poutine décidé dem di xeex ak fële toll affaire bi egsi ci mel nii Ousmane Sonko bëgg a toog ci nguur gi mais toog ci nguur gi moom ak ñoom Khalifa Sall mais cela ne veut pas dire que donc mënuñu jël ci naafeq di imputé yëpp Macky Sall dañu arrêté concorde nationale la ñu war a soxla jamono ci pour yeewi askan bi mais pas di yabal ay jeunes yi nga xamante ne xëy na sonn nañ ndax crise bi am na sax ñi nga xamante ne bu crise amul woon sax dañuy sonn parce que du jàng demal école maa bañ wuti métier maa bañ nga bëgg am gel nga bëgg di ko wutal sëfa nga bëgg di noos nga bëgg dem du boîte te boo yeewoo café boo jënd sax sa waa kër ñoo la koy def ñooñu bu ñu la nee boo demee kër ministre yi ko di am milliard mais wax nga ko violence verbale prochaine manifestation boo leen demee seen kër yi di ngeen fa fekk ay milliards ci xale bu amul cinquante mille yaa ngi leen di yabal foofu moo tax ma ne waa bennoo bu ñu waree am fulu ñoom ñëpp aar seen bopp seen njaboot ku ci nekk wut sa sa sa sa parce que Ousmane fi mu jëme nit ñi mooy su ma wootee manifestation jëluñ ci jilis yi na ngeen dem attaqué responsable bennoo woon tey bëgg na ci parce que nekkul kii ci sax ndax seen bêtise bi ñu def ñoom seen légèreté ak seen cuune donc jeunes yi muy wax dem leen ci attaque wuti ay milliards ci këru nit ñi jeunes yooyu la bëgg a sacrifier pour que ñu teer mbiru mbiru Adji Sarr pour bu procès mu sa am tous les schémas de Ousmane Sonko c'est nañu fàtte mbiru Adji Sarr pour mun ko ci atte moo tax mu bëgg xeex bi mu boole ci ñoom ay Aïda boo ak ñoom Khalifa Sall ak ñoom ñeneen ak ñeneen ñëpp ba ñëpp dugg ci xeex bi ngir ñu bañ a waxati waxam stratégie boobu dem c'est la stratégie de tout ou jàng nañ ko en termes de communication stratégie de combat. Le bon à l'abîme. Donner sa vie pour masquer une chose. est-ce que loolu la war a am Sénégal. mais c'est ce qu'il faut déplorer loolu mooy yeew askan bi au moment où ñu ne denrée yi adduna bi ñëpp la impacté ba ci France mii ëpp ñu doole ba ci États-Unis qu'est-ce que le Sénégalais war a def pour des de député bi nga xamante ne nee nga soxla woo salaire nga def sa bêtise parce que investir la lu baaxul ñu signifié la ko Déthié Fall du mu may mandataire yéegi ba mu gisee liste Benno amul parité daf ko woote constaté ko signalé ko ba tamit gis liste yeewi am na étudiante bu tudd Fama Meng bu bokk pur bi ñu fi def amul vingt-cinq ans ñu dindi Fama Mbengue ci dernier jour bi parce que amatuñu woon possibilité changer loi bi may na leen ko cinq jours yu njëkk ci cinquième jour bi bañ leen ko signifié ndax bon waa ko gis ci moment boobu ne leen yéen jiix ngeen ba gis ab téeñ ci suñu ñun ñu nit gis nañ ab téeñ ci yéen li ñu gis mooy xale bi tudd Fama Mbengue amul vingt cinq ans te ku amul vingt cinq ans waroo nekk député est ce moo wax ñu dugal Fama Mbengue est ce que Benoît Sambou moo ko dugal seen liste est ministre de Antoine Diome moo ko dugal seen liste est waa nguur gi ñoo dugal kooku ci liste bi Fama Mbengue boobu est ce que waa nguur gi ñoo ko dugal ci liste yeew bi te amul vingt cinq ans bañ leen ko signalé du nangu nañ ko lu tax ñu dem remplacer ko kon ñoo defoon seen bêtise est-ce que nit ñi dégg nañ ne ñoom jox nañ leen notification bi ñu dem changé ko ñu dem indiwaat Anta Touré Anta Touré moo ngi woon ci liste suppléante yi ba pare te liste suppléante bi DG ak commission bi vérifié nañ ko ba gis ne respecté na parité ña ca war a nekk góor jigéen nekk na mu teg ko mu jël litif liste titulaire bi nee leen gis nañ ci waa bennoo mandataire bi ñuy wax Benoît Sambou gis na ci ab étudiante bu amul vingt cinq a joxe kooku bu génnee da ngeen di ñàkk dem leen dugal ne contrôle bi fa Baaxi comme Fama Mbengue pur la bokkoon ñoom ñu woo waa ne leen seen Fama Mbengue bi ndekete étudiante la amul vingt cinq ans indi leen ñu keneen waa pur joxaat leen Anta Touré nekkoon ci liste yi est-ce moo leen ko joxaat est-ce que Benoît Sambou moo leen ko jox est-ce que moo leen ko jox yéen ñi may déglu est-ce que bii ñu leen notifié est-ce nguur gi laal na ci loxoom ci seen biir la loolay dëgg ñu indiwaat Anta ñu ne leen Anta Touré nekk na fi ba pare baaxul waaye cinq jours yi cinq jours yi jeex na kon liste 53 yi bañ leen ne Fama Mbengue mënul dugg indiwu leen Astou Pouye mu am 35 ans te bokkul fenn mais da ngeen indi Anta Touré mi nekkoon ci liste suppléant yi te kooku mënul jóge fii di dem fii ndax kii ngeen indi existé na ba pare indi leen keneen mais indi keneen boobu daa fekk mu wees ndax cinquième jour bi mot na tëj nañ ko kon seen liste 53 ñaata la léegi 52 te ñëpp 53 la ñu war a am constitution bi ne code électoral bi ne in liste incomplète est rejetée waaw bu ñëpp amee 53 nga am 52 c'est rejeté ndax Fama Beng bañ koy remplacer yéen def bêtise bu toll ni ngeen dem indi keneen qui n'est pas recevable ñu ne la il n'est pas recevable Anta Touré mënul dugg fii ndax kooku vérifié nañ ko ba teg fële te yéen biiru leen ñu wax ñu kii nañuy dugal fii dugal fii da ngeen indi kii pour mu remplacer kii ñu ne leen kii mënul dugg waaye période bu tëjuloon ñun ñu dem suñu parité bi bii ñuy respecté wul ci 43e 44e bu tëjuloon ñu dem changé ko waaye tëj na ci ñëpp a ci yem kon seen liste manqué na seen liste titulaire kon c'est incomplète constitution bi rejeté na ko ba ñu demee recours conseil constitutionnel da ko rejeté et ñoo def seen bêtise Ousmane Sonko ci boppam moo ne bu ko kenn wax Macky Sall ñun ñoo toog Sonko euh, euh, Khalifa Sall ñu toog di xaar Barthélémy Dias di xaar mi Dias mu bëgg dugal ñaari maire ba finalement ñu indi ñetti jigéen ñetti góor yu toppalante mais foofu tamit dañoo tappale jël code bi contourné ko liste Dakar bu ñu indee li Barthélémy teg ci jigéen indi góor teg ci jigéen dañ cee teg ñetti góor Pala Samb Joseph toppalante te foofu baaxul parce que la loi dafa wax ne su dee liste bi dafa impair parité bi dañ ko respecté dernier chiffre pair bi muy six kon six yi moom dañoo waroon dugalante góor jigéen góor jigéen septième bi nag ko la def comme Pikine Pikine awañaa moo jiitu daawar ñaa njaay topp ci di góor Ramamaki topp ci di jigéen Pape Sagna topp ci di góor xanaa kon 4 4 yi parité na cinquième bi comme c'est impair ku la neex defal ñu def góor Amadou Diarra man mii di wax ak yow kon respecté nañ parité ñoom nag yi la ñu waroon respecté septième bi ñu di góor xam nga li si boobu baaxul respecté parité ñun benn suppléante la ñu juum 43 44 ñu rejeté suñu liste ñoom 3 la ñu juum mais dañoo def benn astuce la démission code bi sóoraalewul koo tabb ci sa coobare bopp mu nangu ko dugal listam avant élection yi ci période de vérification yi ki nga tabb ne bugguma je démissionne code bi musul sóoraale na investiture bi nga tabb ni député mu ne bugguma ñu indi démission daal di Pala Samba Joseph Sarr yëpp dem ñu remplacer ko nag daal di respecté parité mais bañ koy bëgg a remplacer ci période contrôle bi DG da leen ko bañal di dem jooy ko conseil conseil mu jox leen dëgg est-ce que coow jib na bañ ko dugalaatee remplacer respecté parité bi ñun dañ leen a attaqué leen ba ngeen génnee ay góor yu démissionné ay góor ngeen war a dugal conseil conseil la dàq ñu ne eh, amul sóoru code bi sóoru bay sóor soo génnee góor góor ngay dugal wala jigéen comme loolu sóorul dañoo jaar astuce pour wax démission te code bi sóorul démission sóorul remplacer démission kon mën na jàll bàyyi leen ñu jàll ñun ñu nangu seen liste Dakar baax na léegi Barthélémy mën na dem campagne waaye seen liste titulaire bi Ousmane Sonko ji baaxul te Ousmane Sonko ci boppam wax na ko ci page Facebook am ah baaxul léegi ñoom nee nañ waaw léegi léegi ñoom ñoo jur Sénégal quoi ñoom moom Sénégal def nañ seen tooxi doona def nañ seen légèreté def nañ seen incompétence wax ko lépp dégg ko Macky Sall dugalu ci loxom di changé Fama Meng ak Anta Touré Antoine Diome changé wul Fama Meng Anta Touré place Fama Meng Benoît Sambou dindiwul Fama Meng dugalaat fa Anta Touré mi nekkoon ci suppléante yi ñoom la ak seen i te ñi Benoît amee nit ñi Déthié Déthié Déthié Fall amee sañ-sañ en tant que mandataire luxmboot suñu liste mm-hmm. ba gis ci manquement boobu noonu la aussi Benoît nekk mandataire Benno am luxmboot bu mu mun a xool seen liste ba gis ci luxmboot boobu ñu signifié leen ko bañ leen ko signifié mais buñ changé woon ku war a dugg ba ñu dugal keneen ku duggoon comme Anta Touré mais kon coow lu du am kon seen bêtise la ñoom nañ ko assumer ba cinq ans après ñu xaaraat beneen élection député mais c'est fini pour ñoom def seen bêtise ñu ne non liste bi su jàllul nañ taal dëkk bi dem leen attaqué gars yi ay milliards lañu seen kër moo tax ba ñu jàppee le le député Abdou Bara Dolly dañoo waroon jëli Ousmane Sonko man je me demande est-ce que Ousmane Sonko est devenu un intouchable au Sénégal il fait il demande insurrection wàcc leen ci dëkk bi maa tey nañ leen dem pale maa tey jëli si dañ doon agressé sama oto yow Ousmane Sonko légèreté lañ la xamee. su oto personnel amul chauffeur bu ko garde amul garde corps bu ko garde amul militant bu ko garde ba ñu wekki ñeenti pneu yi pour saboter la pour rey la kooku dañ ko dénk Sénégal mënoo tëj sa oto. waaye mais waru sax nekk maire Ziguinchor bay nekk miiru sa maire euh, euh, ma président Sénégal sa oto personnel man dinaa jël sama oto di dem meeting ni chauffeur ba wàccal toog di seetaan bu dul sax yooyu mun nañ ci wis du la yàq mun nañ ci def attentat nga suur ko nga prudent mais prévisible. Donc tu montres que tu n'es pas prévisible, tu montres que tu n'es pas capable de prévenir atteint danger. Alors qu'on a un président qui est en train de faire rayonner le Sénégal dans le monde entier. Mais par sa di diplomatie. Oui, que vous... C'est Ousmane Sonko là. arrête un microbe dans l'organisme. Le Sénégal nekk ci jàmm parce que bu ñu respecté woon le calendrier électoral jóge ci ay élections locales. Macky Sall ne dàq nañ élection yi ba beneen jamono parce que le monde est en guerre il prend un décret il ñoom ñooy tëb danañ leen def élection il respecte le calendrier républicain ñu ne élection daa mais ñoom ñoo moom Sénégal parce que il surfe sur la conscience de yenn jeunes yi nga xamante ne voilà eh, Ousmane guerrier la waaye dégg nga ndigal gi naa na waaw nangam. militant bennoo yi nañu dem seen kër responsable yi saa yu wootee manifestation parce que moo ne gars yi bu prochaine manifestation amee seen kër yi ay milliards léegi ñooñu amuñu fan yi seen biir kër yi amuñu ay doom boo fa duggee bëgg a wër ay milliards doo fa rey ay nit léegi nit ñi dañuy toog nii rek ba ñu rey leen quoi parce que 14 ne deewoon na mujj fen léegi ñu xool léegi waa Bennoo ñu assassiné leen waa Bennoo li ñu war a wax seen militants yi ñëpp jóg nañu jël seen matukaay prochaine manifestation yi soo ko woote ku ci nekk yow ak say militant ak say moom ñu wër seen kër téye suñ ko deful ay bandi mun nañ ci rax agressé ay di nga dégg ñu ne kër mi sangam taal nañ ko bañ sàccee alal bi dem nañ rey nañ kii suul nañ ko taal nañ fa pono def nañ nii Sénégal xalif diine yëpp ñëpp ñëpp ne nañ ne Sénégal wu jàmm wuutin bi nañ ko xool moom wuutin bi il s'en pour le calendrier des gens qui le financent à l'étranger il est prêt à faire sens dessus sens dessus au Sénégal. léegi lan ñu war a def déjà les. il faut que Ousmane Sonko que gars yi défier ko. que waa Benno bu fekkee ils sont majoritaires au Sénégal qu'ils sortent taxaw xaar ba li muy woote ndax dañ ko jënd. manipulation de conscience yi muy def ñu génnee ko aujourd'hui tous les journalistes sont d'accord que il a tenu des propos désobligeants dangereux dans une république il faut qu'il arrête ou qu'on l'arrête parce que Sénégal moo mag Ousmane Sonko moo mag Macky Sall benn waay mënul toog parce que. mais tey ku tey ku fi ñëwoon léegi léegi dem leen ñoo ngi toj benn boutique fële wala benn bijouterie bu am or nga bëgg ci mais ñaata jeune ñoo fay dem pour pour sàcc aloonu jàmbur ñaata sareet lañ doon jël di toj ay Auchan jamono bu metti bii ñu ne méttiwaay bi Macky Sall la ce n'est pas vrai tout le monde xam nañ ko il est en train de faire de d'excellentes choses jeunesse bi kontaan la majorité des sénégalais kontaan jox ko élection yi en 2019 fal ko dès le premier tour joxaat ko ay miir ba ñun fi ñu nekkoon ñu xam ne waa ji moo ko yor ñu ñëw di ànd ak moom pour ànd ak moom construire ce pays là Ousmane Sonko son projet n'est pas atteint il est prêt à déstabiliser le Sénégal ànd ak ñi mu waxoon du mës a ànd ak ñoom parti socialiste naka lay toogee di wax naan boo demee gis ancien PS yi di leen lim ñoom Aminata Mbengue Ndiaye ñoom Moustapha dañoo lekk ci nguur yëpp alors Aïda Mbodj a ngi ci wetam Khalifa Sall a ci wetam c'est pas triste ma waxoon doo ànd ak waa PDS parce que ils sont du système Karim duma woow ma koy jël aujourd'hui booy Karim moo toog ci ginnaawam booyu Karim li li le l'envoyé spécial de Karim ñooñu lay àndal mooy booy Saliou Dieng xaw ma xoolal image yi seen conférence bu mujj bi fa muy toog di wax bopp Saliou Dieng ngay gis booy Karim Mamadou Lamine am doomu Ablaye Wade Kébémer maire Kébémer toog ci wetam di jël parole Mamadou Diallo tekki ñi mu ne woon du Moussa ànd ak ñoom au même moment mu bëgg a yeew Sénégal il nous parle de yeewi askan bi alors ko moom moo bëgg a yeew askan bi. le 17 moom la ñu war a yeew. waaw ah, le 17 ñu newaat ñoom dañuy amalaat rassemblement fi ñu ko amaloon euh, déjà rek gis nañ euh, CNRA wala gouverneur bu Dakar ko communiqué bi nga xam ne génnee na ko ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum propagande ak mbirum manifestation alors euh, mën nañ jàpp ni ki nga xam ne moom moo di gouverneur de Dakar mi ngi anticiper préfet bi pour mu euh, bañ a autoriser marche bi. mais mais normalement manifestation moo warul am on est dans une période de code électoral bi bu ñu tere des manifestations tere même presse bi muy partager lu jëm ci propagande campagne bu leen wateel bennoo campagne la. bu leen woteel woteel leen kii campagne la fal leen kii député campagne la te loolu lañ fay wax manifestation ci boppam. te loolu est-ce que du prérogative média yi. ñoo ko war a ñoo war a sélectionner li ñuy sélectionner. mais prérogative gouverneur la mu rappeler les dispositions des règlements de ce pays. parce que c'est un exécutif. rappeler lii général a wax dëgg la manifestation yi aussi du am ku nekk da nga war a xaar ba période bi passé nga dem defi sa campagne. Guy Marius Sagna mooy candidat am Ziguinchor na xaar ba campagne bi commencé mu dem jàppale ji ko foofu suñ paree mu ñëw jàppale Barthélémy Dias mais yii muy bëgg a def pour prétexte ci pour attaquer waa kër Benno yi waa Benno nañ ko préparé moo tax mais ci liñ mooy euh, ñàkkum autorisation non warul am bay am autorisation c'est-à-dire autorisation kenn ko demandé en terme de manifestation tu informe ça veut dire xamuñu code électoral bi ni ñu cuunee ba xam ne waruñu dugal étudiante boobu am donc informé nañ peut-être ñoom mun nañ informé dama ne gouverneur da leen ko war a tere su leen ko teree ñu génn ci mbedd mi dem attaqué kër waa Benno yi Ousmane Sonko li mu planifié xam na ko mais ministre de l'intérieur mënul aar buntu kër bu nekk na buntu kër bu nekk aar sa bopp lu leer laa la wax Wemba buñ ko caaxaane Ousmane ko yabal na nit ñi kër responsable yi dem leen wuti fa ay millions ay milliards loolu leen wax parce que bu ñu wootee période bu ñu warul woote woote manifestation bu ñu leen warul autoriser il est en de leur dire prochaine manifestation boo leen demee seen kër yi attaqué ko di ngeen fa fekk ay milliards et milliards te prochaine manifestation bi jàpp na ko le 17 te dañ koy interdire mooy le 17 dem leen ci kër yi waa kër yi ak seeni militants waa Benno bu dee nangu nañ Ousmane Sonko yabal ay nit te li ma leen di digal mooy tout Sénégal ñëpp geetaru toog di leen ndax dinañ romb kër yi. problème ñi mu amee ay militants. noonu la Macky Sall amee ay militants noonu la leader Benno amee ay militants soo attaqué kër jàmbur rey fa ay nit ñu attaqué kër rey fa nit Sénégal guerre civile lay dem Ousmane Sonko foofu la bëgg a yóbbu Sénégal te kenn du ko wax ñu toog di nas di fen di jaxase naan oui dañoo euh, saboté sama oto c'est des mensonges c'est des communiste la euh, marxiste yi léniniste yooyu la daan def ba ñuy étudiant dañ lay dénk xaalis nga lekk ko dem taal sa néeg nga ne way a xaalis bi ko ay techniques yooyu la ñu ba ñuy diriger grève paaka waañ ngay yóbbu nga ne waaye agresseurs yi dañ ma doon agressé ci yoon bi ma dàq leen ba jël paaka bi ñoo ngi nii fekk sa paaka waañ nga génnee comme paaka bi yaa ko moom ku koy jël si suñ ñemee nañ ñëw jël seen paaka paaka bi yaa ko moom kuy ñëw jël ko bu nga defee ñu ne gënee nga suñu dirigeant bi gënee nga affaire xale yooyu Ousmane Sonko def di dox ci maa ngi jeunes yi les jeunes yi muus ku mu neex nag àndal moom ku mu neex votel ko nous monsieur le maire am mbégte lañ am ah, ak contentement tey ñu dalal encore ci émission gox bi ñoo lay remercier bu baax ci sa disponibilité. ñu bàyyi la nga tàggatoo ak ñi nga xam ne ñoo di mbokk auditeurs yi ak auditrices yi. waaw li ma leen di njëkk wax ci tàggatoo bi mooy di leen yëgal ni encore président Macky Sall tabb na ma député candidat député ci liste Pikine liste benn Bokk Yaakaar. en face de moi y a d'autres listes yu yu am mais Pikine Nord ba mu daj ku fi yeewoo ko te nekk ci liste amul à part ñii politique Pikine Nord yëpp dëkk Pikine Nord di fi yeewu bëgg Pikine Nord ñi fi dëkk ñi fi cosaanoo ñëpp kenn tabbuñu la ci yeneen parti maanaam ku bokk Pikine Nord ku ñu tabb Amadou Diarra kese kon ku dëkk Pikine Nord voté beneen liste voté nga député bi nga xam te ne su faloo da nga koy seeti ca goxam li muy tekki nag mooy falaayam donc di gërëm aussi président Macky Sall ci confiance boobu di ko féliciter aussi ci fi mu yëkkati diplomatie sénégalaise mm-hmm. guerre bi ba mu paree ñëpp dañ ne woon Macky Sall wax de Poutine mii dafa dof muy wax balaa ñuy bombarder Sénégal. dem na négocier mu dem Nations Unies. gars yi di voté contre mu ne je m'abstiens man Afrique laa bokk Sénégal laa dëkk. Sénégal dafa am lu ci yàlla teg. Mhm. ci leadership bu mu war a am ëllëg. du suñu warugal rawatina may président union africaine mais bokk ci farfarloo te war a atte position d'audace boobu mu toog ci ngarale bi mu ngarale mun a wax ak ñi ak ñii moo ko may mu dem ba Russie en pleine guerre toog ak Poutine te président France sañu ko jamono ji président États-Unis sañu ko jamono ji loolu mu def ku iñaanu soxoru waaw la itam loolu ko waral moo tax mu waaxu dem pour njëg yi lekk beeg naan beeg dund beeg bi ñu bañ a am famine Afrique ak adduna bi su ko mënee arrêté sax sa njiitu ko félicité na toog naan day lambar lambar moom ñoom Habib Sy kii ñii ku ñu yàpp man maa koy féliciter au nom de population de Pikine Nord et au nom du département de Pikine ci turu maire Timbo mi suñu coordonnateur départemental ci turu responsable yi fi nekk yëpp mhm. ci turu askan bi yëpp ci turu Sénégal que Macky Sall taxawaayam boobu maa ngi ko ci ñaanal yàlla jàppale ko ba mu am ci ndam ba mu am réussir ba guerre bi arrêté ba ñu dolluwaat fi ñu dolloon baril pétrole bi tey yéeg na yéeg bu toll ni incontournablement dina am jeexit ci njëg yi mhm. mais alal bi ci def ba mu toll nii buñ ko xeeb ko ci def loon mu gën a tar nii donc buñ ko jiñ moom ñàkk yërmandeem parce que barki démb rek la wax commerçant yi yëpp nañu wàññi pour affaire yi ba contrôle de prix lañ ko wax nañ ko war a def parce que ndigal gi mu joxe bu ko commerçant yi defoon kon mu wàññee quoi donc xat na moo ngi président union africaine moo ngi dem ci tukki yu mel noonu moo ngi jëm ci ay élection ba liggéey boobu bëri bëri ci boppam bi nga xamante ne ñoo ko ci war a jàppale presque sensibiliser ces commerçants violents yi nga xamante ne dañ ciy